rek commencé ak xew-xew bu am Sénégal bu am solo muy sëñ woote bi mu woote démb. Mm-hmm. ànd ci ak euh, Cheikh Ibrahima Fall yëpp. ci zikrullah ci ci mu euh, jamono bu am solo la ñu soxla ko aussi ci jamono mm-hmm. parce que tudd woo nit ñi ngir ñu pour ñu fàttaliku yàlla. Mm-hmm. nit ñi pour ñu fàttaliku yàlla mooy nit ñi pour ñu le sens même de leur existence sur terre woo nit ñi ñu fàttaliku le sens de leur existence sur terre mooy woo pour ni ko sëñ Saliou doon waxee li ñu fi indi te ñu fi te je pense que li ci ëpp solo mooy di jëriñe te doo lore di te doo lore je pense que ne c'est la somme de cette attitude de ces attitudes moom mooy tax ñu mën am vivre ensemble boo xam bu mucc ayib la ndax ne je pense que ne cooki bi métti na raag bi na de part et d'autre rayante bi métti na dóorante bi métti rayante au figuré comme au propre. Mhm. dóorante bi métti na euh, te à tous les niveaux au niveau ci famille yi ba ci fa gën kawé ah, famille famille bi gëna tout tuuti ba kër ga gëna a mag ci dëkk bi fépp xex rek la. ak te ah, dara jaru ko culture du suspicion ak rupture de confiance à défiance voire même insurrection je pense que né loolu motax ñuy njukkal bu baax sëriñ. Mouhamadou Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi ak euh, ñi nga xamante ni ñoom la ci àndaloon muy njabootu Cheikh Ibrahima Fall mhm. euh, ci ne fàttaliku yàlla ni ko sunu borom waxee moom moo gën a màgg lépp waaw mhm. inna salata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar mhm. alxuraan tamit wax na ala zikrillahi tatmainal xulóob nee na ci tudd yàlla la ñuy amee li nga xamante ni moom la rek la nit soxla parce que ay milliards du ko joxe leneen du ko joxe ñu ne ko mooy lan mooy la quiétude tumaanina mooy la quiétude du la quiétude du cœur je pense que dalu xel ak dalu xol ci tudd yàlla lañ koy jëlee Et je pense que c'était un grand moment euh, boo xamante ni dafay permettre nit ki mu mën a en harmonie avec soi-même